voilà merci beaucoup amis et fidèles internautes yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel a travers MPROD TV euh, chaîne bi nga xamante ni lépp luy qualité image ak son bu nice fii nga ko mën a amee euh, tey nag su ma toogee koo xamante ni kenn la ci kër Seydi Hadji Malick waaye kenn la ci kër Serigne Babacar Sy ba kër rek dërëmaar aram loo kumba caam bëgguma penda ak patim penda xaar yàlla boobu coor Eva Solution euh, moom mi nga xamante ni réew mi ku ne dégg nay jaloorem ci xeetu baax baaxam waaye ci bëgg Seydi Hadji Malick ak Serigne Babacar Sy Eva maa ngi lay nuyu bu baax a baax doomu ndeyu Faama noo def maa ngi lay ziar bu baax di la wax ni dalal ak jàmm. Mm-hmm. mais Eva ñu gis ni gàmm gi ren dafa ala doome euh, li nga defoon daaw nga defulu ko doublé euh, kan moo jaar foofu. yàlla sunu borom ak sama maam Seydi Hadji Malick ak sama yaakaar bi nga xamante ni si tey ku mu bëgg si àdduna moom moo tax mu Seydi Aboubacar Sy. Mm-hmm. Mm-hmm. mais daan nga gàmm mais gàmm gi euh, niveau bi dafa yokku. daan naa gàmm daan naa gàmm ku ne xam na ne Eva daan na gàmm. mais sama gàmmu ren mosuma ko gàmm. ci ban façon. Euh, dew ma banque jëli xaalis. si mhm. sama compte. leboo lebu ma def ci gàmmu gi. Mhm. ñaanu ma def ci gàmmu gi. Mhm. tijjiwu ma sama armuwaal def ci gàmmu gi. barki Seydi Aboubacar si sama yaakaar li ma def ci gàmmu gi ci juróomi fan la ma ko Serigne Babacar si jox ma teg ko ci loxo Fama Faye ni ko bugguma ci dara. dig ñu ko nettali de. dinaa leen ko nettali. juróomi fan laa préparé sama gàmm ci liggéey bii may liggéey maanaam jaay ba tiit jaay man ba tiit mhm. ci lan sëriñ Babacar Sy kenn ku nekk mi ngi xaar Eva ci gàmmu gi kenn ku nekk mi ngi ni Eva sa dal laay dal si mhm. maam booy sama gàmmu gi defar ko nu raw ni nga ko daan defaree bis bi ma waxee loolu premier jour bi ma njëkk waxee loolu sëriñ Babacar si journée bi 4 millions laa jaay. dégguma de. premier jour bi ma waxee loolu sëñ Babacar si sama wàccaayu gàmmu 4 millions laa jaay. nga jàkkaarloog sëriñ Babacar si ne ko maam booy sama gàmmu gi defar ko mu dàq ci sama gàmmu yi. gàmmu bu ma mës a gàmmu te barke Seydi Aboubacar si sama yaakaar gàmmu gu ma mës a gàmmu sama gàmmu ren giyee ko dàq. premier jour 4 millions. mu des 4 jours. ñu dem. te bis bu ca taf taflu rek bu ca taftalu rek lam sa jaay du ma ko wax. ah Serigne Babacar si wanati na boppam. Serigne Babacar si wan ma boppam paasewul fi ma daan toog di jaay koko fii ci Tiwaawan ma def tey sama dal bi fii ma sama nit ñi wuy si fii ma ñëpp fekk tey samay mbokk fekk ma fi sama sëyukaay fekk ma fi fii laa daan toog euh, gàmmu Tiwaawan xam nga lu ma fi daan jaay sotti saako koko mhm. sotti saako orange sook saako si dem di ko jaay ci jamono bi ma koy jaay dama naan Serigne Babacar si maa ngi ñaan fi ma toog tey jii sa dëkk bii di fi jaay di fi daan sama doole bis yàlla na ñëw ma am lu ma fi indi di ko terele sa njaboot gii di fi gàmm si. yàggul de li may wax mi ngi nekk ay côté 2017 ma nekk xale su ma daan jaay Tiwaawan ba samay mbokk romb des fois ma rus nag ndax damaa bokk ci ay mbokk yu baax. Mm-hmm. bu ma daan jaay ba ñu romb ma Euh, nuyu ma damay xaw a am sax mais bu ma xalaatee li ma bëgg ëllëg ci Tiwaawan rek du ma amaat gàcce damay taxawaat su ma jaayee ko ko sotti dànk sotti siddéem mooy sërite yi ñuy jaay boo jugee gàmm mhm. ba pare damay jël xaalis bi defaat ko boobu ndoxu takk yi lañuy ñuy ma maye lépp si Tiwaawan dem daani Serigne Babacar si jaral na ma ko. dafa mel ni kon sa coono démb moo feeñ tey. moo feeñ tey. lépp lu mu bëggoon rek. ci du ko def Tiwaawan baaba Babacar si may na ma ko. te biir na ma ni man day jëm kanam. mais bi nga xoolee euh, sa démb yaa ngi doon euh, sotti ay saaku koko saaku sa dànq ak si dem euh, tey sunu boroom defar lépp doo toog ba ci yàgg nga ni yow jàmbaar nga fier ci sa bopp. waa du ma du ma wax ni jàmbaar laa damay wax ni sama yaay jàmbaar la. man duma wax ni jàmbaar laa mukk damay wax ni sama yaay jàmbaar la ndax bi ma juree ba pare sama baay am na lu ma yoree de. am na lu mu yoree samay nawle. ndax magasin bu toll ne salle bi ma toog la daan chargé dund ba mu fees mosuñoo taxaw ci buntu boutique xam lu kilo ceeb di jar wala litre diwlin mosuñu koo xam. ba fii may waxee ak moo am suñu kër. waaye man dama judd am fukki at ak ñett fekk sama yaay ak ay nawleem si këram ma ni sama papa man damaa bëggatul ngay jox sama yaay dépense bi suba ma doon ree si fukki at ak ñett si jigéen waa man ko damaa bëgg bis bu sama yaay ayatee rek nga bàyyi ma ma jaayante ko. ndax sama dépense su papa doy na de. waaye ku ne xam ne ni cin loo si def def def boroom defal ci boppam leneen. su ko defee buñ ne sama yaay des na ñaari fan pour mu aye ci laay dem régler loolu ñëw teg ko ko mosul ñaan lu mu doolee dépense am. ñaani loowu ma nag abbi loowu ma lebiwu la waaye man maa judd rek bëgg liggéey defal sama bopp. bëgguma ko ma may. ba nii may waxee yow nii tey nit bu yëkkatee junni may ma ko. day rëy si man ndax man dama foog ni man rek maa war di joxe kenn waru maa jox. waaw. moo tax bu ma nit mayee sax damay rus. pour man àdduna man rek maa war di joxe kenn waru maa jox moo tax ma nit joxee day rëy si man. lan mooy lan mooy secret Eva solution parce que li réew di bari bari da nga nekk jigéen boo xamante ni bu jàpp njàmbur nga jigéen bu am classe jigéen bu discret jigéen boo xamante ni doo ko dégg ci daray détail lan mooy sa secret. waaw aw sama yaay mooy sama secret nitu kees la ma juddu mel ni moom. sama yaay rek mooy sama secret. ban ban relation particulière nga am ak sa yaay parce que euh, depuis wax ji commencé lu ñu wax rek nga ni sa yaay mooy sa secret. dafa baax si man ba nii ma toll nii mu nekk Louga ma nekk fii sama yaay day tëdd ba 4 di du matin mu di ma woo ni ma sama xel mi moo nekk si yow ndax yaa ngi ci jàmm. ndeysaan. bu feebaree sax day woote laaj ma ndax yow da ngaa nekkul ci jàmm man ba ma xëyee ba tey damaa feebar. Mm-hmm. man sama yaay may taawam bu jigéen mais dund caat lay dund ak man damaa bëgg moo tax heure bii daaw ci gàmmu gi bi ma demee gàmmu gàmmu gàmm ndax tuuti ci kanam du ma nekki Eva Kassé boo ñëwaatee si kanam tuuti ba fekk ma fi ci digg digg gàmmu gi di nga xam ne duma nekk nekki Eva Kassé hmm? waaw ma tollee ci maman yooyu dama ni yàlla ah bu dee sama sama sama gàmmu gi nangu na mais ma bu déwénee lu ma yóbboo sama yaay màkka ci baak sëriñ baaba si sama yaay dem na màkka ba ñëw ma nga ne ko nga ne gu mag mm-hmm. amul lu mu musul ñaan sëriñ Babacar si tamayu mayuma ko bu doon nit day day day day passé fi muy deewee mun naa ni euh, fi ma waroon a deewee sëriñ Babacar si tax na deewu ma fa fekk na ma fu bari kay eh, waaw ci dama siy ñëw ndax lu ma yàkkamti woon a ngi noonu wax sama diggante ak Serigne Babacar Sy. Mm-hmm. ba tax tey ñëpp di ma woowee Eva bu Serigne Babacar ma bëgg ko loolu mu doon fierté si man. Mm-hmm. ndax liñ may dàkkantelee. dama ëmb ba am ñetti weer dugg ci oto muy tàkk. ma dóor buntu oto bi wàcc benn borom moto dab ma ni ma yaa ngi waaxu foo jëm boobu sama rax jigéen moo am doom ma yàkkamti teraanga bi ma war dimbalee sama yaay di ko jëli ji dakaar ci bëgg ji ma ko bëgg rek moom sama yaay. Mhm. borom moto bi romb ma ni ma foo jëm. yéegal yaa ngi waaxu rek maa ngi lay gis Mariama Niass ba fii ngay waaxu diggante Mariama Niass ak Colobane. Mhm. dama yéeg ci moto bi rek garambu bi bi ma sol laxasu ma jëllu si moto bi wàcc maa ngi ëmb sama doom bu góor sama yaram bi yëpp toj ci tali bi. si ceen laa desal ak benn baa bu ñëw ba fi dagg ma seriñ Serigne Babacar Sy bul dindi sama cër yi de ndax sama yaram bi yëpp moom fi mu ne summeeku na maa ngi koy wax ci sama xol sama yaram bi yépp ñor sama yaram bi yëpp yàqu bi ñu ñëwee ba sotti ma ndox tëli dafa mel ne lu doon tàq waaye may ñaan Serigne Babacar Sy rek naam yàlla la ñaan nag waaye bëgg gu ma ko bëgg ma naan ah, dimbali ma de muccal ma nag te muccal lii nekk ci sama biir bi muccal ma rek te muccal li nekk sama biir bi balaa sapeur pompier di ñëw nelaw naa. nelaw naa. bi sapeur pompier see yàlla joxaat ma sama xel ma yeewu. kër bi ñu ma dugalee si oto bi ma ne ko li ma bëgg de mooy damaa nekk jigéenu wérul te à tout moment li may yëg nii mën naa nelaw waaye ngeen bañ maa jox dara lu may lor. Mhm. bi médecin bi xamee loolu ba bindal ma kayit ci laa tàkkalikoo ak sama sogo xamatuma fu ma nekk sëriñ Babacar si fekk ma ci ay guddi fekk ma ci ay bëccëg génnee ma ci lu bari su weeru koor masaana jot ma jaay ba pare li ma am mu tuuti mu bari ma jënd ko ay ndox mu sedd dugg ci terrain bi di ko joxe bëgg gu ko bëgg dama naan ko sii di faagay demba mi si jawaar li may joxe nii bis yàlla na nekk conteneur ma di ko joxe. te ba tey maa ngi ci joxe. ba tey maa ngi ci joxe lépp lu ma ko mës a ñaan ci àdduna rek may na ma ko. ren nag dama koo ñaan bu déwénee mu may ma kër goo xamante ni si bu ngeen ñëwee ci ngeen may fekk gu mag. incha ndaxte sama li nga xamante ni si moom laay def ci Tiwaawan man defuma dal boo xamante ni si pour ku ñëw. toog ay wan ay puukare wu de def ma yëfi àdduna de mhm. damay togg samay mbana génne ko ci mbeddi Tiwaawan yi nit ñi amul fu ñuy dal di ko lekk mhm. lii moo waral sama dal bi ci damay ñaan abu Aboubacar si mu dem ba doon ay téeméeri téeméeri téeméeri téeméeri waañ fii ci biir Tiwaawan te dogu naa ko ci moom ñaan naa ko mu may ma ko. la ngay denkaat euh, sa mbokku jigéen ñi ci jamono bu nga xamante ni réew mi dafa naqari euh, góor baax na jigéen baax na. li may njëkk a dénk sama moroomu jigéen yi mooy que ne ñu fonk seeni yaay fonk seeni baay fonk surtout seeni ay borom kër. Mm-hmm. ndax fi réew mi toll li xew léegi mooy boo yoree tuuti rek. daal di bàyyi sa jëkkër man Eva de du ma bàyyi sama jëkkër xam nga lu tax du ma bàyyi sama jëkkër sama jëkkër fekk na ma may téye ay millions man waaye ba mu ñëwee damaa gën a téye ay millions ndax du ma yàqal te tegu ma bët. dëgg la ma yàqal de te tegu ma bët fekk na nag may téye ay millions waaye ba mu ñëwee yokku na samay millions. Mhm. ndax tegu ma stress laajuma Eva fooy dem. man damay toog di xëy huit heures ci suba di liggéey ba huit heures ci suba waat du ma tëdd ci lal te jëkkër waaye ma ngay ñëw di ma tijjil ay po may sol diw ma ngi may garaateel saabu ma may wuyul samay téléphone ma ngay wax ak samay client ma ngay lijjanti sama xaalis ak livreur yi. te bu ko neexoon mun ma Eva ma ni ko ah mun ma man damaa doon sa borom kër jox ma sama wàccuwaay naam jox naa ko wàccuwaayam mais dafay dem sax ba man en tant que soxna damay rus ndax taxawu bi may taxawoo. sama goro mi ngi fii ci dal bi dafa waroon a toog ñu di ko bernde di ko teral moo ay mbokkam yëpp la ñu indi ñoom ñoo nekk ci waañ wi nii di ma toggal samay mbokku jëkkër ñoo nekk fii ci waañ wi doon ay Baay Faal dal bi dañoo foog ne sax dalu Baay Faal la ñoo baas ñoo indi seize ñoo nekk nii di togg café gii ñu teg ci mbedd mi di ko séddale ak ndox yi ñoo nekk di ko séddale ak samay njëkke ak sama famille sama waa kër ndey ak sama waa kër baay li may wax jigéen ñi mooy bu ñu fonkee seen waajur yi ba pare nañ teg seen boroom kër yi ak seen goro yi te bàyyi àdduna bi naxi neen la rek naxi neen la rek mais euh, sa diggante ak Fama du ñàkk ñu euh, euh, branché ci tuuti ndax gis nañ depuis démb bi ñuy tasee ci talibi bi la ni ma suba moom noo mënti def di nga ñëw ci Eva Solution ma ni ko yow lan la la Eva defal ba heure boo ma gisee rek na ma Eva Solution Fama faama du duñu ay xarit danoo bokk yaay papay faama fay ak sama papa la woon yaayu faama fay ak sama yaay la woon man ak faama fay yàlla boole maak moom faama du ma yàqal faama duma ma jay faama dundul ak man intérêt day xañ boppam sax jox ma day xañ boppam sax jox ma nekk nag ak ni ngay gisee sunu ànd mais maa ngi lay waatal ñi ci barke Seydi Aboubacar si yàlla la àndeek man Fama fay yàlla la àndeek man Seydi Aboubacar si la àndeek man li may ñaan yàlla rek mooy mu sàmmal ma sama diggante ak moom Fama day dégg ne ndax man ku ne da koy kalaas ndax man Fama sa rakk ji nangam Fama sa rakk ji dafa mel nangam Fama sa rakk ji lii mu dekku rek Médoune maa ngi doog a jàkkaarloog nit naan damay def interview ñemewu ma ko. ndax du munuma ay wax. Euh, shooting yeeg yii may def nii yëpp sax ki ma koy defal day xam ne Eva mii du nit kuy jàkkaarloog nit di ko xool. waaye bis day jot faa nga wax. nga wax. ñi ma la ñëpp ñu baax lañ ci man faa fay yàlla rek laa xay bàyyee. sama liggéey bi jàpp nañ ci bu baax. jàpp na ci bu baax a baax a baax ku nekk day classe Fama Faye day dégg lu nekk ci TikTok bi waaye mu jàpp rek ni Eva la billaay mu jàpp rek ni Eva la yàlla na ma yàlla bàyyeeg Fama. Fama euh, la ngay jooy. sama rakk ji moo ma yëngal nag ku ne am bu ndëpp moom bu waxee ci man ba jooy yëg-yëg la sama digganteeg moom mais man maa amul lu ma ko fayee moom nag day sama rakk man am naa nit ku baax ku nekk am naa gér gu ne waaye moom day sama rakk may tooñ sax des fois nit ñi ma ni leen Eva eh du sama géer yëngal na ma nag eh, ni mu gaawee jooy noonu laa gaawee jooy xam nga fi réew mi toll ànd amatul wala ànd bu sincère ba ngay gërëm sa sœur ba tur sarangooñ Eva nag sama rakk la papaam moo àndoon ak sama papa yaayam ànd ak sama yaay ci ginnaaw raay muy sama rakk muy sama rakk bopp di sama rakk xol ki yënga ni xamul kenn ci réew mi ku mu xam ci réew mi rek barke Seydi Ababacar Si maa ko booleeg moom yaayam nag moomu ko dénk mënuma Eva Sarak la yow laa ko dénk sama fekki sama wuute muy gërëm borom këram jigéen mu sa dugg kër Eva solution ni xarit la moom lay set jigéen mu sa dugg këram ni dëkkandoo la Eva lay seet influenceur mu sa dugg kër Eva solution ni Eva lay seet ndax yàlla daf ko bind amul xarit amul àndandoo bi ma ñëwee nag pour ñu bokk liggéey ma liggéeyal ko ci la cofeel dugg ndax première jour ki ma ko paas téléphone dana ma faama dama bëggoon nga jàppale koo xam ne yéen a bokk lépp ginnaaw raay mu ne ko kan la mu ne ma Eva solution dama bëgg di ko defal ay vidéo ndax sa te ñu ngi koy defal ci àll bi Eva war nga ko a defal ma daan ne ko ah man ma mu paas ma ko par téléphone ci moment boobu nag ku ma xam ne xam ma man animatrice saa dama bëri tiitër ma ne ko waa amul problème dinaa xool ma bàyyi mu sedd dawala deux mois kooku woowaat ma téléphone ni ma mais faa ma Eva bitigam yokku na de ma ne ko macha allah yow mais bi yow koo tegal loxo sax mi ngi liggéey de mu ne ma ubbiwaat na beneen bitig bu bokkut ak bitig bi ci centre commercial bi ma nag ma am ci ma am ci yëg-yëg lii yëg-yëg bi mooy ma ni bërët aw ma kudul jibi fay ma tàgg ko ni ko maa ngi seeti sama sœur Eva Solution te jibi medun mii di sama mag xam na ci dara korog laa volontaire woo sama sœur Ami mbay ni ko am naa contrat bu bees ak ku ñuy wax Eva Solution bu Seydi Aboubacar Si bi mun ma demal te ñëw ndax man mii di wax yow man jigéen du ma fréquenté sama kër kese koroog laa volontaire ànd ak moom ndax man àdduna kenn rek lañ ma xamal muy tima aan tima aan rek laay dem këram di fa fanaan xaritoog moom ñu ànd ànd bu sincère mais jour bi ma fëggee sama dënn pour ànd xale bi koroog la jigéen ma a dugg këram pour xarit ma ñëw fekk fa jëkkëram mu nuyoo rek dem ma tuni ni ko Eva Pa Badiane mi moom bëri na caractère de mun ma nii la mel faama diiran bi nga xamee dugg naa ko ci néegu sëy aw ma xarit aw ma àndandoo koroog laa volontaire nu ñu ànd mu bëgg ma lool bëgg mewuma du def lu ma tàggul bu yore ay millions man la koy dénk moom dafa baax rek gërëm ma bay jooy nii mais man maa ko war a gërëm sama rakk la bi ci des nag yàlla boole ma ak moom may dugg këram jigéen mosu fa dugg jëkkëram bàyyi ma ak moom dama seetaan ak moom ma dem ba dugg ci biir ménage am ménage am ma ànd ak moom nag loolu ci jëkkëram moo tax su Eva nekkee ci biir kër gi sax daan man lay woo téléphone ne ma faama Eva na noppalu wala Eva nangam Eva nangam maay dem këram rek la ko ñibbisiwaat sama kër muy liggéey ay millions di ma ko dénk xam may kan Eva ñi ko xam ci internet bi man maa ko présenté samay xarit Eva nit mus ko gis xew benn yoon la ko Sénégalais yi gisee muy Alima Ndione taalibe Serigne Babacar si bi nga xam ni sëriñ baaba Babacar moo ko booleeg moom mu tëgg Sorano mu ne man man dama dem ci yooyu man ko tey da ngay dem. Alioune Ndione kilifa la ci réew mi mu tudd la bis sa ngay dem korog la mës a dugg Sorano première guddeem korog la mujj xew yi xale yi di dem man maa koy woo ni ko Eva mu ne ma ah mane ko diw sàngam am na xew mu ne ma nu may def ma ne ko jox ma ndawtal li ak mayu géwél yi mu may géwél yi joxe ndawtal loolu nag li ko waral mooy yaram ak tegginam ak bëgg borom këram bi muy sëyal ak respecté sëyu kaayam ba du def lu mu war ta def yëngal yaay Eva. barke salaatul fatiha nit zalma yi mën na ma seede sama rakk la nit du ko xool du xool nit ak nit seen bët jàkkaarloo Eva ci yer boobu la nekk Eva maa ko présenté ti maa ko présenté Bambi Faye mi ma bokkal ndey ak baay amul xarit amul àndandoo ba ci xale yi ni ci réew mi mën mi maa ko booleeg ñoom muy liggéey ak ci moom laa mës a nit ku amul maf mafia loolu soo ko déggee ma mooy mooy li xale yu xewal nga nekk borom tur ku nekk nga ànd ak moom am xale yoo xam ni ñooy toog ci sa ginnaaw li naa nga ut ay emprunté jekk faali ngoone ma sàmbaak géri ngoone ma sàmbaak ma faama ndaama tëx bàyyi sa maam balaa dégg fi bala ñaar tak jéeri jéeri fu ma tàyyee bàyyi soo demee ndaat sa kër maam dem ka yow sa kër maam sa maam la daan bal fukki bala ñaar takk soo demee sa kër maam géwël géer ñëpp ndaat maa lobe sàmba jëri ngoone mbay sama rakk ji yàlla na sa jàmm yàgg ziar général dafa jot mu yor 12 millions man ko ma ne Tiwaawan laa dëkk waaye 12 millions yëpp ci ziar bi nga koy def mu ne ma faama fay géwél xaalis bi yëpp ci ziar général bi la jëm ma teg ko ay kaf ñu ànd sama kër maam mu yàq xaalis ba mu jeex def ko ci kër sangam loolu du yàq-yàq tuub naa ko loolu du yàq-yàq maanaam danga yor sa alal jëf ko ci sa sëriñ ba mu jeex takk takk takk takk takk takk nga ma jot ñu jóge Touba mu jox joxe gorom ay xar jox gorom ay nag jox gorom gilleem tubaar fakkal la jënd luy doon boisson camion yi nga def ndox ak boisson fruit moom la yóbbu Touba joxe ko ñu jóge Touba mu ñëw mu ne ma faama ma ne ko ah mu ne ma li ma yor na fu nii damaa bëggoon waxtaan man ko lu ñuy waxtaanee fu ñu toll ci waxtaan bi mu tekki million ngi def ko ci mbuus toile bu bula bula blanc yi ci la tekki xaalis bi ni ma faama fay géwél am man ko Eva lii fan la jëm mu ne ma gàmmu Tiwaawan na ko tax a jóg man ko gàmmu Tiwaawan mu ne ma lu ma am Tiwaawan laa koy def te duma ko teg ci loxo kenn ci sa loxo laa koy teg ma jël xaalis bi woo caat mbay gawlo di sama càmmiñ mën ko Eva solution di toj na dëkk bi daf ma jox million millions man ko 1 million bi ci lu mu jëm mun ma bala maa bousé tuawaan ku fa nekk joxal ma ko mu wàcceel ma kaamil bi nga séddaleel ma ko man mi maa ko loolu nag tollul ci diggante caméra ay film ndax am na lu ñor loo xam boo koy defee sa sang soxla woon yenn man mi maa la wàccee lu kaamil maa ko joxe tuawaan ci daara yi mu ne ma nag léegi dañ jënd luy bernde rek nu yóbbu ko tuawaan woo naa ñëpp dal bii ku nekk gis ngeen ko fi sànq Babacar Bongo mu baax mi dafa ñëw ci suba ni ma faama sama yaram day daw kaay wuy déglu waalo waalo yi tiim Eva di ko ñaanal te ay mag lañu te daluñu ci dal bi kon yow nit ku baax nga sa digganteeg Serigne Babacar rek loo ci def da ngay gën a fulu xam nga Médoune lu ma kii defal te fi koy waxee dañ ma bu gàmmoo bi ma yoree millions yi naw ko lool nag te ko nii ni ko sama rakk ji li nga def ci sa sang bi bari na de. mun ma am na lu ci des wool ma sëñ góor mu al amin ma woo ma woo ko sëñ góor a téléphone def ko main libre mu daal di ma yóbbu naa la umra mun ngaa ma ba mu am ñetti fan da ngay dem umra dese la tooma dara faali ngoone ma sàmba fi nu ko waxtaane xam nga man dama neex ma daal di commencé nag di woote woo sama mag ji jigéen ji ni ko sama liggéey ndey feeñ na kër Eva mu ne ma ci lan la ma ne ko am mbay Eva ne daf ma yóbbu umra woo Tima An mi ma àndaloon xale nu ko Eva Solution daf ma yóbbu Makarène yaa ma yóbbu woon Fez wane la maag Cheikh waaye nag daj dëpp galaa jëm sabar ji fa la may yóbbu borom këram génn ni ma bis boo demee boo ñëw da ngay nganale faama géwal ngaay bu dee da ngay nganale ma may la nag ma ne ko waaw waaw ku dem umra boo ñëwee nganale kon Eva mënuma ko fay desalatuma dara man dama am gan sama kër nga fis del mbaam bi rek laa fa bàyyi ni ko géreel ma gan ñi ak sama néegu baay bi nga xam ne ñoom laa bokkal bàyyi ak sama néegu ndey ak sama taawu yaay ak nogoy sama doom ji nga xam ni ma ngay séeg sama càmmiñ avocat de la cour bi ñoo des ci kër ma ñëw ci sama rakk ji ndax ku la ni buffet mu def ci réew mii dibi ji ñu lakk ko teg xar yi mu ne faama fay mi ma àndaloon daq gétt gi kii mooy taxaw ñu ubbi buffet bi kii laa mënta fay looloo tax ma solu nii yére ñëw ci moom wéttali si ko su ma paree doo ko delluwaat ci kër ga. waaw Médoune sama rakk ji naa am na sax ñu ma dégg ci TikTok bi ñuy wax ci waxu waxu waxu shooting bi kii maa ko shooting loo xam yooyu laxasaay rek la xam bu ci kanamee boo ko fekkee doo ko xàmmee. waaw parce avant ñuy commencé euh, tungu ne du teew ñuy nataal dañu ma xaaral ma dem soli laxasaay bi ma ne ko bula bi nga def saf na. waaw ndax man bi ma yegsee dama woo eh, Aïcha ni ko Aïcha maquillé nga ko ba pare Aïcha ni ma ma maquillé naa Eva solution pare man ku ñu summi laxasaay bi sama boro de la sol comme moom moo ma ko xottil ci mam ci am kon nañ ko nuróole ku xam Eva xam ne bu xëyee bisu gàmmo laxasaay lay def ndax nag taalibi sëñ Abdou Karim Mbacké bi moo ko yor muy Pape Badiane yaakaar nag siñ Abdou Karim Mbacké borom maqale ak laa ñu yaakaar sëñ Abdou Karim Mbacké lii mu am ba mu barkeel taalibe sëriñ Babacar Sy Malick la waaye nag sëñ Abdou Karim lu mu laal mu dem kookoy nan ubbil ndox mi ubbil butéel bi ma seen ndox mi jox la ko mu nekk en direct kooku muy sëriñ Abdou Karim Mbacke doomi sëriñ ji sëñ Abdou Karim Mbacke ko defar moom la ñu ko yóbbu produit mu ñaanal ko ci ànd ak borom këram muy Pape Badiane taalibi sëñ Abdou soo xoolee waa ñim samp ci biir Tiwaawan yëpp ay taalib sëñ Abdou Karim ñoo fa nekk di togg comme nag sëñ Abdou Karim Mbacke borom ma xaleex dañ koy ñaan gudd fan ak wér sama doom ji nga xam ne daa mën a sënab loolu moom mooy kon nañ koy ñaanal wér ak gudd fan di nag képp ku dëkk njàmbur njàmbur gépp ñëw nañ ci Eva Solution képp ku dëkk njàmbur te bokk ak moom rek duy nga ci kaari ñëw fii ci Eva Solution waaye di gërëm waa Touba Touba nag dañuy gërëm sunu yaay ju baax ju fa nekk muy soxna Ousseynou yaay Ousseynou mooy goroom ay kaar la duy bi muy ñëw démb dama ree ba bëgg a dee dafa ñëw indaale araw lu bari ak sunguf ma ne ko lii nag mu ma bu nu sonnee tey ci ngoon gi ci yàpp wi dañuy ruy di naan kon kooku goro bu la bëgg la ñu koy sant di ko gërëm noonu laay gërëmee nag sama nawle géwél sama mag yi toog di gërëm Cat Mbay ndax man nekkuma ci Eva waaye Cat Mbay moom ma fi toogal ci Eva solution waaye di gërëm na xale yi nga xam danañu wuy si di ay nitu valeur di nit ñu baax di njëkkee nag ci Babacar Bongo Babacar def nga sa bu rëy gàmmo jot ay ni kër yi bare nga ñëw ci Eva Solution bokk ak moom gàmmo gi ak buffet bi kon Babacar jërëjëf waaye Zal Mbaye mënuñu ko fay Zal mooy Eva Solution kooku mooy géwél juddu Eva Solution Zal mbay may toog démb ci guddi la yegg si ñëw ci ci gàmm gi ñëw ci Eva Solution bi muy ñëw léegi dafa ànd ak sama rakk jëmbaay ànd ak sama nawle bee bi nga xam ne tubaar fakkal la baax gën ñu ànd ci foir gu njëkk ga di gërëm ñépp waaye di gërëm Baye Fall yi ànd ak ñun di ko njëkkee nag ci ki ci waañ wi muy njëga ñu noonu tunu fay njëga njëga asek ñëw ma ndeyas mooy def lépp bi ci des di gërëm Aziz Ndiaye lii damaa bëgg na ñëpp taal téléphone yi Aziz Ndiaye Zal Mbaye damaa bëgg ngeen taal seen téléphone ci Aziz Ndiaye Medoune Aziz Ndiaye dafa wax lu rëy gaa yaay bopp mi ngi ñëw honorable député Mame Diarra Fam moom la convoi bi jëli ji noonu muy sa bàjjan surtout alburi biram penn ñeeme ali seynabu alburi tabaraay maamam cukku njiig laan njiig laan sara njaaja alburi muy bàjjanu Aziz Ndiaye di bàjjanu nday Anta Ndiaye waaye di sa bàjjan yow kon li nga bokk ak ñoom sax du lii te honorable wax na ko léegi kër Aziz Ndiaye Aziz nag këccëg dafay ñëw ak keneen beneen mbër bi Fadam ñu def geste bu rafet korog bi Aziz joxe juróom fukki junni paasu gàmmu Eva daf maa woo téléphone ni ma damaa romb live ñi maye paas ga ba bàyyi ma jox leen ko ndax nee nga dootoo ma séddale ndax damaa sonn ci màggal gi mu yónnee fa juróom-benn fukki junni ñu séddale ko séddale bu rafet këccëb def geste bu rafet ñëw fii mook fa dam Aziz Ndiaye woo Eva solution ni ko li nga def laa dégg ci gàmmu gi gis sa gétt gi gis sa taraanga gi gis lu baax li nga def ci gàmmu gi te man awma ku du kër Alaaji Malick ndax alima jigéen maamam bu daan ñëw Tiwaawan day jëlaale ay saakoy suuf ni dëkk ba Alaaji Maalik tëdd ma fa man tubaar fakkal la kon kooku Tiwaawan la dëkk Tiwaawan rek la am Aziz ñëw indi ay nagam jox ko sunu kër sunu sang yi sunu sëriñ si jox ko néew ju doole yi Eva solution yow ngay xale looloo tax ma woo la nga def geste bu rëy indi say nag indi say xar def fu ne nga def fa waañ kon maa ngi lay sant di la gërëm yow nag man maa la bëggal sama bopp te dama laa soxla ñëwal nga wuy si ma kon Aziz Ndiaye woo bi mu woo Eva solution lu rëy la ci ñun te lépp ci këccëb la jaar mu baax mi ak Fadam ci saa si mun ko paas xaar ma paas sa can may gawlo moo fi nekk ndax Abdou Ndiaye moom ci kanam lay ñëw ci moom moom moo màggal màggal gi Thiat Mbaye wax ak Aziz ñu waxtaanee wax lu baax ñu coupé woo ma téléphone mu ne ma Aziz de sama mag la. dama koy yóbbu léegi teraanga te yaa koy yóbbu man maa yóbbu démb booli ya fekk fa yaa ndeyab sa njaabi yaa a wax lu rëy ma koy nuy bu baax di ko gërëm ni ma man jëlaguma micro di wax waaye dinaa wax ci yow wax ci Eva Solution gërëm Eva Solution gërëm ma man mii waaye mu gërëm Anta Ndiaye caatam mi Anta Ndiaye doomam ji gën Anta Ndiaye doomam ji yaru ji nga xam dafa ñëw gis ma ci samay vidéo ni ma boole ma ak Eva Solution ma boole ko ak Eva Eva di ko pro di ko yónnee ay gàmm muy diwu di fa Eva solution pub di ko publicité te su ko neexoon mu fay ko fayu ko dërëm daa bëgg Eva solution Anta Ndiaye nag sama géer la man nag xale yi ma àndal te nu baax dama leen a boole man sama géer ñëpp laa boole ñu bokk nday ak baay ndax loolu mooy mooy nit loolu moo tax ñuy wax géwél ndax géwél dafa war di boole. looloo waral démb teraanga gi nu yóbbu kër Aziz Ndiaye ñuy wax Aziz jërëjëf exemplaire nga ci Tiwaawan yow ku xool ci yow lu mu am indi ko Tiwaawan bi ci des mooy Abdou Ndiaye Abdou Ndiaye mooy sunu bàyyi faal bi yéen bu nu sampee tànt yi Abdou Ndiaye la sunu tegee mbana yi Abdou Ndiaye la sunu xambee matt mi Abdou Ndiaye la mu nekk xale bu baax nekk ak Eva jugee ba kees def ay cavion ñëw ñëw dooleel Eva laxasaay yi ñu war a sol ci kanam Abdou Ndiaye dañuy ñëwal ba ñawal ñu valise. nit ku baax la daf ñuy ñawal ba bi ma dikkee man koy valise yi ñuy ñawal pour ñu war ko yóbbu màkk honorable nee naa arrêté màkk ñetti yére fay dem kon yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér di leen gërëm yéen ndax mënuñu leen a fay particulièrement yow ak Médoune Médoune moom dama koy wax mention spéciale ndax nit ku baax la Médoune fu lu baax fu mu nekk fa la nekk surtout Médoune du génne luñ koy xeebe Médoune miy toog sitam mës a ko ni ñi naan ee eh, sama waa ji ba nga nekkee TFM nga gën sama mag ji bi nga demee tabaar fakkaal la ber yor fi bopp dangaa woo doomi senegal yëpp ñu ciy liggéey yëg nga ni man su ma bëggee xarmat damay woo Médoune fu muy dem ma ànd ak moom te micro bi mu jox ma sama wërsëg ma dem damay fekk ci bis ma ne ko mag gi man de maa ngi nii moo may njëkk yëkkati alalam may ma ko kor Jami Guèye nag sama mag nga yow micro bi may liggéey boolewuma ak yow sama frère nga mbokkum ndeyum yaay jibi fay yow nit ku baax nga bi ci des sunu sunu maquilleuse bi nag xale la moo nu maquillé ba ñu rafet ndax gàmmu ànd na ak taan wàññiwul dara Eva mu sa maquillage Eva daan simple rek waaye nag ren maa ne ko Aïssa Ndiaye yàlla ku ma faal Ndiaye gawlu bi ci gàddaay ma sin ma batoon Ndiaye bi daan dikkee nga ñoo xool ma nga liberté 6 xale yi di jël ci ñoom rendez-vous di leen maquillé loo rafet dem leen ci Aïssa Ndiaye merci beaucoup naa la bàyyi ak ndax li ci xolam jooyee taxoon ma dagg ko li muy jooy ndax man moo tax ma dagg ko. dañuy ñëw moom ci diggante ak sëñ Abdou Karim rek ñu daal di tëj waxtaan sànq ci diggante nu diggante sëñ Abdou nga léeg-léeg tooñ ma sax ni ma Eva ak taaliba gi nga doon. ngay ngay sëy ak Baye waaye lépp rek euh, teraanga la. ngor la sëñ Abdou Karim euh, moom a njëkk ñaanal ci sama boutique. jour bi ma demee Ndindi. ànd faak sama borom kër bii bis boobu takkaguma sax bu jamono yooyu takkaguma sax mu ma dama laa bëgg a yóbbu ci sama sëriñ mu ñaanal la sëñ Abdou Karim ma ne ko anañ ah, dem bi ñu demee sëñ Abdou Karim bi ñu ñëwee li mu njëkk a def mooy soxna Mintu Thiam bu Pikine mhm. la wax ni ko kii de sama taalibe Cheikh bii yóbbul ma ko ci waañ wi lépp luy teraanga nañ ma ko ko defalal moom ci làmmiñu boppam mhm. mu yóbbu ma ñu defal ma ay teraanga ma sangu jàpp ñëwaat ci kanamam mu génn ci mbooloo mi bi ñu ñëwee dañu benn Baay Faal bu ñuy wax jëgg dugalal ma ko nii mu ñëw man duma jaar ci mbooloo keroog sama tànk yi da doon lox jëgg ma tee ñoo teg ma si kanamam man ak sama boroom kër bii may sëyal tey kon du affaire bay Faal ak Tiijaan mu daan ni ko damaa bëgg nga ñaanal ko sëñ Abdou Karim ni ko jàpp ko te jàppale ko sama diggante sama jëkkër du ay caaxaan de du tijaan ak murit de du ay million de du ay junni de mbëggeel jiitu na ci loolu waaye ngor am na ci sëñ Abdou Karim ni ko jàpp ko te jàppale ko daal di may ñaanal fukki fan ak juróom laa ci teg ubbi sama première boutique ñaari at laa ci teg ubbi sama deuxième boutique yeneen ñaari at laa ci ubbi tegaat ubbi sama troisième boutique kon sama jëkkër jigadiwu ma te boobu sëyeguñu li ma la wax sànq yàgg naa takki million te xamuma ko waaye bu ma ko xamee takki million yomb na ma ba bu ma koy génnee di joxe du ma insister. faama dañu million maa ngi ñaan ci kattanu Serigne Babacar si bu déwénee ma def 100 millions ci gàmmu gi. lu ma am. dinaa ko delloo njukkalee Serigne Babacar si ndax li ma la wax rek fi ma doon sotti koko ji di ko jaay di fi sotti orange ji di ko jaay di fi sotti siddéem si di ko jaay ci gàmmu waawan samay mbokk di ma fi romb tey fi laa ay waañ. fi la ma samay mbokku fekkaat. wax bu ne waay. kon jërëjëf Serigne Babacar si laay wax jërëjëf Serigne Babacar si jërëjëf Serigne Babacar si di ñaan yàlla. ni mu ma judduloo ci taaliba seex gi ma màgg ci yaru ci nekk ci yàlla na ma ci rey bu ëllëgee mu dekkal ma ci ma gisanteeg Serigne Babacar si mu dugal ma aljana ak képp ku nekk si tarixa bi. booy maa ngi lay fekk laaj lañ la ko fii def euh, Babacar ñu ngi lay xaar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. waaw nag maa ngi leen di fay maa ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant du nuyu Eva solution bu baax mii ki nga xam ne faama fay moo ma booleek moom mu doon nag nit ku ñàkk ki ñaan. yor xool bu rafet maa ngi koy ñaanal lépp loo ñàkk ci gàmmu gi rek bu déwénee yàlla nga am lu ko ëpp ci barke Serigne Babacar si nga yaakaar. man nag sama diggante moom ba ñu xamantee yàggut faama fay mi toog moomu boole moom ñu ne gàmm ñu ne màggal des na trois jours ma bokk ci nag tam mu yëkkati trois millions. jox ma ko barke Seydina Mohamed loolu doon lu rëy ci man bu may dem di tëgg ji sax damay yàqamti toog sama biir oto defoon ko vidéo envoyé ko barke alxuraanu karim daa doon jigéen bu baax jigéen bu ñàkk ñaan dama koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ci barki salaatul fatiha yàlla juboole ko borom këram nag ah, yàlla juboole ko ay goroom ay njëkkeem te yàlla bàyyi ko faama fay mii yàlla na leen yàlla sàmm yàlla làq leen fu làq eggul ci barke salaatul fatiha waaw maa ngi koy naan rek euh, nit moom bu demee ba toll fii rek na liggéey. Mm-hmm. liggéey mooy lépp focus mooy lépp. Mm-hmm. dama koy naan yàlla na ko yàlla dafa jàmm rek place doon ay place place ci barke mm-hmm. alxuraanu karim kenn xam ko ci wax kenn xam ko ci dara. toog liggéey focus lañ ko xamee yàlla na ko yàlla defal jàmm ak ñi mu ko bokkandul ñëpp ci barke Seydina Muhammad. ak maa bëgg si ngoom ma dama bëgg si ngoom <laughs> ma damay nelaw sax di yee si ngoom billaay maa ngi lay fay bu baax. Euh, nga ñëw euh, ci mhm. euh, moom bu ñu ko gisee ci bésu Eva Solution kenn du laaj lu tax ndax gëlëm ko ko yenn gànnaar ku ne yaa ko ñibbiloo bu ngeen ma gisee fii kenn du na lu tax à cause de femme fay géwél mhm. ndax nag booy gërëm da ngay gërëm ki xam ba taal bi ki taxani toog. ki yenu say bi nag la ñu moo moo jar a gërëm muy Fama Faye mi nga xam ne moo ma yàqal Eva solution man Zal Mbaye Fama Faye mi moo ma booleeg Eva te bi ma booleeg Eva réccu ma ko benn yoon réccu ma ko benn yoon ndax nag Eva dafa nekk tubaarkaat danoo bokk benn maam man ak moom ndax giwel ja ca ndaat la rek ak giir ña ca ndaat man ma bokk giwel ja ca ndaat moom ma bokk giir ña ca ndaat koo ci woo li ma gi ndaat ma faali ku ma naa ma tëx bee sunu maam balaa ma si dégg fukk bala ñaar ni tuy danoo bokk menn maam te danoo bokk luñ mënta séddoo Eva solution mi dañoo bokk luñ mënta séddoo faama fa géwél nag moo ma ko yàkkal maamu dem baag dàcc ma coloo fe maa far bay téeñ yaayam ja la ñuy jooy waaye mu bari jom lool nangoo liggéey lool bëgg zaal mbay géwél ba mu neex bari doole kon bi ma fi gisee kenn du tax Euh, lan ngay dénkaat Eva euh, na lool euh, te ku ne xam waa xam nga ànd dafa metti mm-hmm. ànd dafa metti waaye booy ànd ak sa nawle nga bëgg ngeen ànd da jël sa jikko rek jox ko mu jël jox la ngeen ànd booy ànd ak nit bul xool li muy def ak li muy wax ndax nit loo xool ci moom moom ngay gis Fama Faye mi xoolu ci Eva dara Eva tamit dégluwul ci digganteem ak Fama Faye kenn la ci dégluwul man loolu biir na ma. moo tax seen ànd bi ci kaw ci kanam rek ci lu baax. oh kii xam nga ne kii mooy kan. ah kii Khoudia Mbaye mi mi nga xam ne mère Ndiabé yaayam ngay laajte kuy kii Khoudia Mbaye mi mère Ndiabé yaayam. joxal ma ko. barke lay lalu. salaamaaleykum. maa ngi nuyoo bu baax. di nuyu Fama fay sama mag jooju. Mm-hmm. bu dem mbaag ndaa mi ci loo fa maam goro fat bay teeñ. nga xam ne du baadoolab géwal. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam. Mm-hmm. di nuyu sama jëkkër ji Medoune. nga xam ne moom yàqul dara xale yi ci moom lañuy jànge fii nag li ba fi indi dafa nekk lu ma ñor ndax man duma waxantu. Eva mii. mën naa ne ñu ngi soog a toog tey dama ko woo Fama fay ni ko Eva dama bëgg a diwu mu woo foo Eva wax ko mu yónnee ma gaamu sant mille te musuma gis. dëgg la moom nga ma wax démb. téléphone. moom nga ma wax mu yónnee ma gaam bu ñaar fukki moom Eva musuma gis musuma koo gis ñu ngi soog a toog lépp nag grâce à Fama fay waaye nit nag bu la dee sagoo. di la ndamoo xam nga loo ko mën a fayee teral ko teral ay bokkam teral ko teral ay bokkam ndax tubaarkàlla Eva mi su baaxoon a baax a baax baax a baax ba àddina bépp xam ne daa baax te boolewu ci ñu ci bokk kon kenn du wax ndax nit ñi kenn moomu leen réew mi moo am changement dama dégg léegi mun tudd ba wax ba tudd Sëñ Abdou Karim ba tudd jëgg te jëgg moom ñoo àndoon bi ñuy nekk xale 2005 laa jébbalu ci sëñ Abdou Karim waaye yow da ngaa yaru yow réew mi li nga fi am yaa ko may sa bopp. yaru dana ko am nga yar. am nga personnalité. am nga valeur man mi maa la tuddee tekk silence. tekk silence waaw. tur bu bees. tekk silence ku njambaay da wax na ko. ni. Eva solution mi too. dama ne am na yar am na personnalité te it fexe na ba réew mi kenn gënu ko fi man mii toog maa ko tuddee tekk silence. yow Khoudia Mbaye doomu mère Ndiaye yaa tekk silence. tekk silence maa ko tuddee tekk silence. waaw waaw. borom. man Sénégal gii kenn du ma laaj fooy toog. fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee dante gii laa juddoo. Oh. dama ni maa dikk ci yow. nga dend ak sama mag jooju dama ne sa yar ak sa personnalité ak sa xam sa bopp ak xam fi nga juddoo xam li ngay liggéey xam li ngay wax toog ci sa sëyukaay bii dama maa la tuddee tekk silence. ziyaar naa leen tey nag bu ngeen ma laajee ci Eva dama ciy wax ndax nee nañ démb mooy nit te moom maa moom démb la. Eva nee naa ba muy yor ay millions. <laughs> boobu xale yi ñemewuñoo yor ay million te dañuy pat ak silence ba muy takk caméra am bii di wàcc ca gaar ba di ko jox xale yi ñu koy liggéeyee du tey tungu ne du teew ñuy nataal man duma waxal kenn lu mu deful ndax yaakaar naa ni li xale yi def maa ngi koy def maa ngi liggéey maa ngi jaamu yàlla mais bu ma gisee sa nawle ñu koy wax lu baax dama koy wax Eva ba mu baaxee du tey ba mu juddee ba tey bonul barke Alxuraanu Karim nee naa la yow lu la faama fay waxal rek ci yow la nekk ndayawa doo ndayaawa doo soppi jikko ndayaawa doo wax lu ñaaw ndayaawa doo aali xañe mën nga sa nit barke arxuraanu karim faama fay daa mën rek di la waxal lu baax mais lu baax li ci moom la njëkkee ndax maa ngi moom dippi asalem ba tey ma xam ko ci am jom ak jàmbaar di roy ci moom nag ci am jom ak jàmbaar man gaa ñu bëri sax xamuñu ma parce que maay géwal boo xam ne man dew ma fen sama liggéey doo nga ma ñor mais ndeyaaw mii bu ñuy wax ci moom lu baax dama koy wax ba mu neex ndax sama maam daan na wax ngunu ngunu caaxaan ku bëgg dëgg waxal ca kaw yow siigi faa ngay démb mi ci njawaan da lay teral ba mu neex ndax dangaa teral sa bopp teral sa bopp mooy lan yaru nga ndeyaaw doo yàq sa nit ndayaw mën nga séq sa nit àdduna ak li ci biiram boo bu ko waxul yow doo ko wax barke Allaaji Fàllu Mbàkke mën ngaa séq sa nit àdduna ak ci biiram doo ko wax nga am jom am sutura am fulla ba ñuy ànd di jamonoy terrain 125 ba teer bi dem mille farant tey kon xam nga ne jamono neex na te taxul nga changé taxul nga doon hypocrite taxul nga doon naafeq moo tax ma ne la siigi faa ngay ci jawaan da lay teral ba mu neex yow ku lay xaar day xaar barke allah ji fàllu mbàkke ñoo toog seen digg kër sa yaay di la ko wax te tubaab maa fekkee la dëgg ni la ndeyaw nga ne naam mu ni la dangay dem ca kaw ca kanam kenn du la téye te ñi nga àndaloon gisuma ku la ciy raw ci àddina barke allah ji fàllu day metti rek dangay jéng waaye doo daan barke alxuraanu karim mënu maa wax naa am nga yaakaar bëgguma penn ndaak fàtti penn xar yàlla bopp coor faali ngoone maa sàmba yaa nga dëkk kajoor yaa nga dëkk ñambur yaa nga dëkk lugaloo yaa nga dëkk ca yoonu ndar faali ngoone maa samba ak jëri ngoone maa samba man naa ma tëx bàyyi sama maam balaa dégg fukki bala ñaa takk sama waaji yaayu Coro Badiane aram loo kumba caam nga doy loo bëgguma penda ak fàtti penda xar yàlla bopp coor alaaji Maalik Gay baayam mu ngi jóge gaaya sëriñ Babacar Si mooy waalo waalo bi yaayam mu ngi jóge waalo bàyyi sëriñ Cheikh sama sang bi góor gi bi bàyyi Serigne Cheikh góor gi nii namm naa Tiwaawan waaye borom ñetti fan yi bàyyi Serigne Cheikh ju yóbbu ci néegu course bi maami Serigne Moustapha sama sang bi ma yaakaar tey ak ëllëg aram loo kumba caam bëgg ma penda faati penda xar yàlla bopp coor Serigne Malick nga Alaaji Malick nga doy loo bàyyi Serigne Babacar Si Malick bàyyi Dabax bàyyi ay di si maami kantum si sama sang bi ma jëbbali ci moom ki nga doyloo nag fuddeekul sëriñ Babacar bu ñaanee dafay def tani jowa saana <laughs> paye fina ni mu mel sëriñ Babacar a teg loxo mola teg loxo xam nga ki la jàll ki la fal moo la fëlliwul ki aj moo la aram loo kumba caam mi la aj moo la aj jiwul alaaji Maalik ko jur sëriñ si mi ko aj moo ko aj jiwul ay million ay caaxaan yoru ko ku sanguwul takkoo naanoo sanguwoo takkoo naanoo sa ndey di la ñaanal koo yaakaar sëriñ Babacar si Maalik moo la may de sa tànt yii kaw man faama fee géwél na sama rakk ji boole boole naan te nu ko boole tubaar fakal la ñëpp sukkar ku ne guux xaaj na fi de ku ci loog sax mën naa jàll merci beaucoup. waaw àndoo kenn bëccëg bu guddee mu di la gént. waaw. nga ni kenn bëccëg bu guddee di ko gént. doo dëmm doo calgoñ doo xaali xañe barke Alaaji fallu doo dëmm doo calgoñ doo xaali xañe àndoo kenn bëccëg bu guddee mu di la gént réew mi baax rek nga fi def te baax man weesu yaa baax. fii ku fi baax ñu wone la ku fi ku fi mën ñu teg la luy problème bi.